suñu fukk ak ñetti martyrs yi c'était pas pour ça qu'ils ont versé leur sang c'était pas pour ça la ñu joxe seen bakkan c'était pas pour ça c'était pas pour que Cheikh Omar Niabe Anne am xawma un quota de 70 dans les 5000 enseignants à recruter déedéet c'était pas pour que xawma les membres de la l'APR de Podor am xawma ay 50 xawma ay 100 quotas ci 5000 enseignants yi suñu martyrs yi yàlla na leen yàlla yërëm c'était pas pour ça qu'ils ont versé leur sang c'était pas pour ça la ñu ñàkk seen bakkan ñii tëdd kaso benn weer ñaari weer ñetti weer c'était pas pour ça Macky Sall encore une fois dafa trahir le peuple sénégalais qui est notamment sorti en février et en mars waroon na xalaat bakkan yu rot waroon na xalaat ñi tëdd kaso waroon na xalaat bu muy raam fu nekk di woote kilifa diine yi ne ne wuy walloo wuy walloo wuy walloo waroon na xalaat loolu yëpp balaa moo def suñu jigéen yi suñu càmmiñ yi góor ak jigéen yi de braves et vaillants et patriotes enseignants pendant cinq ans ñuy dund lii c'était pas pour ça président Macky Sall léegi nag xam nga wax bu waxu ku daanu ci charrette moom mooy loolu jarul ñuy tontu sax. xaw ma le DRH du ministère de la santé euh, du ministère de l'éducation nationale xaw ma duñu ay enseignants jarul tontu jarul tontu dañoo xamul lu ñuy wax ils savent qu'ils ont tort sur toute la ligne président Macky Sall ton cœur ne doit pas battre que pour ta famille ton parti et ta coalition ton cœur ne doit battre que pour le Sénégal pour tous les citoyens sénégalais qui sont égaux en droit et en dignité Votre cœur, monsieur le président Macky Sall, ne doit battre que pour la qualité de l'éducation nationale, que pour la transparence, la démocratie. Parce que nag président Macky Sall daf ñuy delloo ginnaaw fàttaliku leen jamono Ablaye Wade ak quota sécuritaire da ngay jékki-jékki nga xëy ñu ne la jaaykatu gerte bi fi nekkoon moom kat dem na formation enfin non non ñoo ñu sax kenn daan lu leen fo on les formait pas donc quota sécuritaire mooy ñi nga xam ne dañ la doon jël yóbbu leen directement ci classe yi jaaykatu jën bi nekkoon sa koñ nga jékki-jékki rek ñu ne la mooy jàngal sa doom loolu mooy quota sécuritaire et à l'époque nous avions rappelé ça gis ngeen y a 4 ans y cinq 5 ans y a ans pour cent de taux d'échec au baccalauréat ñu ràngale ko pendant 3 ans xaw ma 4 ans yu teglantoo chaque chaque année bu ñu ñëwee baccalauréat 65 pour cent de to d'échec mais ñu ñan la mooy xale yi duggoon école cent 1995 avec les volontaires avec les vacataires au lieu ñuy former jàngalekat yi euh, euh, euh, trois ans ñu leen di forme neuf mois au lieu ñu leen di fay plus de cent mille francs de salaire bu ñuy commencé ñu leen di fay cinquante mille francs xale yu dugg école cent 1995 ñooñu la ñu tombeel moo tax quelques années plus tard bu ñu amee xaw ma 17 ans 18 ans ma 19 ans war a def bac 65 pour cent de taux d'échec Macky Sall nous ramène à ça avec ses recrutements clientélistes avec ses recrutements politiciens ay jarbaat sama jarbaat ah même bu ñuy jël gendarme ak policier sax dañu may ay quota dëkk bi mënul continuer noonu kumba am ndey ak kumba amul ndey bi dafa jeex xolu président warul warul warul baat pour sa famille ak son parti xolu président lu ko war a yëngal mooy askan wi yëpp yemale ñëpp xolu président waxuma nag xolu xolu pàpp bu ñuy woowee Macky sàll déedéet waxuma xolu jëkkër bu ñuy woowee Macky Sall intéressé wuñu waxuñu xolu Aliou Sané wala xolu Guy Marius xolu président ak nu mu munti tudd yàlla ak askan wi def depuis mille 2012 ak sàcc élection def depuis 2012. suñu président tudd Macky Sall kon xolu président waaw li koy yëngal mooy aar askan wi yépp mbir da nga koy jox waayam bu ko jox sa waay mbir da koy jox waayam bu ko jox sa waay parce que sa mën na bañ a aay ci mbir mi waaye waayu mbir il est expert en ça tant que ci réew mi ñu ngi jël li nga xam ne moom la ñu war a dénk ñu dénk ko suñuy waay mais Sénégal ak Afrique dina continuer nekk ci sous-développement lii kon euh, aliw lii moo fi indi ñii muy lu ñaaw muy lu métti lii sa ne doit pas mënul jàll waratul jàll parce que ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy daj feneen ak feneen ah même mairie sax. bu ñu tabaxee cantine ba pare ñu ne quota monsieur le maire xawma cota quota président commission bi dëkk bi daal ay cota rek la joxe suuf ñu ne cota président assemblée nationale quota président xaw ma de la république mais quota Macky Sall ñu ne 5000 enseignants ñu ne quota diw quota diw quota diw Macky Sall moo ñu tooñ xam ngeen fu mu ñu tooñee Macky Sall moo fi wax ses ministre ak ses directeurs ne leen ku gañewul élection di ñàkk sa post loolu mooy lan il faut utiliser les moyens de l'État pour battre campagne ñenn ñi rek dañoo foogoon ne les moyens de l'État mooy rek sàcc kees këpp kees déedéet les moyens de l'État recrutement bu jotee ci la bokk les moyens de l'État électrification bu jotee à travers la Sénélec ci la bokk moo tax ngeen di gis le directeur de la Sénélec muy fexe ba ba électrifier le maximum Kaolack Kaolack à droit à tout mais tous les Sénégalais également ont droit à tout depuis bi mu waxee loolu ah ministre de l'éducation nationale ne ok comme dañoo bëgg a gagner maanaam élection yi nañ jël ci 5000 yi jël jox les différents responsables de la l'APR dama bëgg mu leer bi mu waxee loolu lañu ñu tooñee gars yi di këpp kees doyul recrutement gendarmerie ku nekk am sa quota. recrutement police ku nekk am sa quota waaye du lii moo taxoon ñuy xeex waaw bés bu nekk ñu ñuy noq ay policiers yaa ñuy noq ay gendarmes yaa ngi ñuy noq dama bëgg sax profité fàttali policiers ak gendarmes yooyu ne ñenn ci yéen tey ginnaaw yàlla bu ngeen nekkee policier ak gendarme c'est parce que de sénégalais sont morts en février et mars moo tax ñuy recruter ay policiers ak ay gendarmes donc bin bin quoi mais xalaat leen euh, suñu fukki martir ak ñett yi. xalaat leen waaw waa Y'en a marre waa No ak ñoom seen ñi nga xam ne ils se sont battus mais c'était pas pour ça moo tax lii mënuñu ko seetaan moo tax lii duñ ko seetaan alors on va donner la parole euh, à suñu doomu ndey yi muy waa Y'en a marre seen teewaay fii dafa am solo bu rëy a rëy ndax contexte bi lu tax mu am solo bu rëy a rëy mooy contexte bi ñu nekk ñëpp xam nañ ne dañoo bëgg a faagaagal Y'en a rey ko ba mu dee ngir président Macky Sall waaw di mun continuer politiku toskare yi ndaxte bu amul ay organisation ay góor ak jigéen organisé pour diir non à ces recrutements clientélistes ça va passer ça va continuer à passer malgré contexte boobu nga xam ne Y'en a am na problème yu rëy rëy Y'en a marre bàyyi léppam ñëw fii donc ñëw bi tey ñëw bu rëy rëy la lenn rek la am lu may wax Y en a marre vivra Y en a marre vaincra Y en a marre vivra Y en a marre vaincra leen mu a marre vivra Y en a marre jërë ngeen jëf. sentiment wu tristesse moo ma animé tey quand je vois Ami et je vois toutes les autres sœurs je vois les frères. ñuy expliquer déjà pas-pas bi ñu am ci mission wu éducation nationale pas-pas biñ ci am ñii ñooy les champions de l'éducation nationale parce que liggéey bu gën a metti ñoom ñoo koy def c'est-à-dire ndaw ji nga xamante ni nekkuñu ci circuit normal la plupart dañu di ñi nga xamante ni dañu nekk ci ay famille yi nga xamante ni dañu néew doole ñenn ak ñenn ñi nga xamante ni peut-être jot nañu dugg waaye ñu décroché nan la ñuy def pour que ñu dugalaat leen ci système bi pour que ñu dugal leen ci il faut un minimum de mu am ñu leen tàggat muy liggéey bu gën a metti ci éducation nationale ñu postuler parmi tant d'autres Sénégalais ñu retenir leen ci parce qu'ils ont le mérite ñu former leen ci fi mu waree dangay gis man j'ai des cousins enseignants j'ai des am na ay enseignants yi ma xam léeg-léeg nga gis kuñ ci affecté ci ay village mu fexe lépp pour dellu siwaat ci centre urbain yi Dakar wala Kolda wala Ziguinchor ñii ñooy dem ci village yi dégg naa léegi ci seeni témoignages il vont au fin fond du Sénégal dans les villages les plus reculés pour aider l'État du Sénégal à ce que mission wu éducation pour tous pour que ñu mën a atteindre ses objectifs tey jii nii je peux dire sans risque de me tromper yenn résultat yi Sénégal am en la matière sax sur la scolarisation des filles wala euh, euh, éducation pour tous globalement ñoom doon nañu ay acteurs yi nga xamante ni liggéey bu ëpp bu am solo def nañ ko ci mais au-delà de loolu sacrifice yi ñu wax yépp bi may déglu Aminata sama yaay ji bi muy wax wax ba ne ni dem na ba ëmb ba diis gànn waaye mission bi nga xamante ni mu doon sacerdoce ci ñu moom mu jàpp ni moom dafa war doon citoyen modèle dafa war doon ki nga xamante ni mission bi ko état assigné ci tàggat ndaw ñi éduquer xale yi daf ko war a matal mu nekk ci malgré état de santé bi mu nekkoon lor bi mu bi mu wan na sama beneen sœur bi mu ngi wax ni période Covid bi mu ñëwee tëj nañu école yi enseignants yi toog ci kër yi élèves yi toog waaye teewut yéen daan ngeen dem di jàngale ñu mel noonu Guy Marius Sagna li xew ci mois de mars yëpp injustice bi nga xamante ni état da koy teg ay citoyen mu yegg ci niveau boo xamante ni musuñu ko atteindre ci Sénégal bu mu indi yenn situation yi nga xamante ni moo amoon fii en mars dernier ñu ne léegi dañuy recruter 5000 enseignants mais quand même bu am un temps soit peu de yërmande pour ses citoyens xanaa balaa ngaa xalaat say militants xoola sénégalais yi nga xamante ni formé nañ leen ba pare ñu nekk ci liggéey bu gën a metti amuñu sax statut bu grande vacances yi ñëwee duñu ñu fayeeku amuñu congé mais xanaa nga war a xalaat ñooñu yërmande. on a un état bi nga xamante ni amul benn sentiment de compassion wala benn yërmande jëmale ko ci ay citoyens mooy li nga wax le cœur du président il doit battre pour les Sénégalais et pour le Sénégal mais pas pour ses partisans j'ai vraiment mal j'ai vraiment mal quand je vois que depuis vendredi ces filles et ces digne fils du Sénégal ñu ngi fi di grève de la faim nit ñi ñu ngi ci yeneen ñu ngi wax ci yeneen et ci lay rendre hommage à la presque qui est venue aujourd'hui répondre à ça parce que lii lu jarawone la pour interpeller Macky Sall je parle même pas du je parle de Macky Sall parce qu'en mars moom moo taxaw face au Sénégalais pour dire que ils vont recruter 5000 enseignants yéen mu fekkoon ni depuis décembre ñu ngi woon ci ay promesses yéen il faut que ñu intégrer leen bu ñëwee ñu annoncé loolu xanaa 5000 vous n'êtes que 210 c'est injuste c'est très injuste sama wax munut bëri sama wax mënut bëri parce que je suis très triste pour ce que je vois ici. xoolal ba xoola ñu ngi wax mënuñu sax wax les voix sont éteintes mais quand ku mel ni ami ku mel ni su yeneen sœurs ku mel ni suñu frère bi ils ont quand même pu puiser ci seeni dernière énergie pour mën a pour mën a pour mën a génnee kàddu yi mu jëm ci ñun Guy Marius gis nga bi may ñëw di dugg si bi ma xoolee ñi fi nekk idée wu ne leen pour ñu mettre fin à cette grève de la faim traversé na sama esprit idée wu ñëw ne leen on est face à un état voyou bi nga xamante ni amul benn yërmande pour ay citoyens amul benn sens de l'écoute c'est-à-dire di déglu ay citoyens pour di wéyee seeni ndigal je failli leur dire arrêtez mais j'ai pas pu parce que le combat est noble et je vois des gens dignes Et on est ensemble dans ce combat. Nous sommes ensemble dans ce combat. il faut que cette injustice soit réparée. te xam nga lan moo am gis nga tey enseignant yi la mais c'est très révélateur ci yeneen domaine ak yeneen ak yeneen domaine li ci xew loolu moo garaaw à travers yenn yeneen ak yeneen i pan wu société catégorie socio-professionnelle nit ñi lii la ñuy dund yan yéen a ñëw tey frappe pour que lii ngeen fësal ko use du dernier en fait c'est-à-dire grève de la faim mooy ultime recours tey ngeen user ko avec dignité ngeen nekk ci mais c'est révélateur de ce qui se passe ci yeneen ci yeneen ci yeneen secteur yi dama leen dañu leen nemmeeku si woon Guy Marius Sagna au nom de tous les yanamaristes au nom de tous ces sénégalais yi nga xamante ni bi ñu fësalee mbir yi ci suñuy plateforme naqarlu nañu lii te ñu ànd ceeg yéen ñu jàpp ni dañu war a ñëw lii ñu déglu leen mais au-delà de ça lii nii il faut que ñu ànd ci taxaw temm pour que le plus rapidement possible que l'État du Sénégal mu jël les disposition qu'il faut pour que ñu intégrer leen dans la fonction publique parce que c'est le minimum que vous méritez parce que yéen dañ leen war a décorer excusez-moi du terme le sale boulot comme on li dit parfois li gën a metti yéen a ko teg seen bopp di ci nekk dignement di ci liggéey yéen au-delà de vous intégrer dans la fonction publique dañ leen war a dañ leen war a décorer loolu laa amoon li may wax mon frère Guy Marius Sagna di wax ni mais xoolal j'ai vu ça bokk na ci yi gën a tax mais ma triste parce que xoolal soxna sële dignité bi mu toogee doomam xool leen wane leen ko elle est là ak doomam mais Aliou dans la délégation il a boo xam ne dafay nampal elle est partie avec xoolal ma lii. Euh, parmi ces femmes a qui sont enceintes parmi les femmes qui femme boo xamante ni mu ngi yor doom bu ndaw mu ngi na le toog. dinañu amal waxtaan bu am solo ak suñuy frères bu FRAPP ak nos sœurs et nos frères des enseignants des classes passerelles pour la suite à donner à ce combat-là bu soobee yàlla et j'espère que dans les plus brefs délais et j'espère vraiment que dans les plus brefs délais le gouvernement de Macky Sall quand même 5000 5000 c'est-à-dire mille kuy recruter 5000 ngay jël say militant di jël say jegenaale munoo jël 210 yi nga xamante ni tàggat nañ leen ñu ngi liggéey di nekk ci village yu gën a sori di jàngal xale yi ñuy du leen di reversé waat ci circuit bi ñu nekk nii ñu bàyyi leen en rade 29 lii mooy ñàkk yërmande dëgg.